savez, je suis à la fois et non sur. Je suis parce que la règle du droit est très claire. Et tout le monde a entendu les représentants de la société, l'avocat général, dire que le ministère de l'Intérieur a excédé ses pouvoirs, a abusé de ses droits et a commis des voies de fait dans la loi ne lui permettait de s'arroger des pouvoirs qui appartiennent au Conseil constitutionnel. Que par voie de conséquence, les demandes et contestations d'Ousmane Sonko sont fondées et qu'il faudrait qu'on lui remette les pistes de C'est le représentant, c'est le Il a été clair et précis. et a expliqué que la confusion ne passera pas, puisque les pouvoirs du ministre de l'Intérieur, c'est lorsque aucune contestation n'existe, n'a été soulevée et a été réglée contradictoirement dans le cadre d'un procès équitable par des juridictions habilitées. Donc le ministre de la Justice, de, de l'Intérieur, ne peut pas rester dans son bureau, être juge et parti et décider ce qu'il fait. C'est tout qui était venu avec un document apparemment écrit, parce que tout le monde a vu qu'il n'a pas pu d'examiner ce, que, ce qui a été plaidé, en rendant, donc, il a immédiatement dit que cela devait être rejeté, dans des conclusions, dans un raisonnement, n'est-ce pas, qui ne donnait pas, avec ces conclusions. Parce que dans le raisonnement du juge, il a reconnu qu'il y avait l'urgence. Il a reconnu qu'il, que le fait de ne pas être autorisé, de ne pas délivrer des fiches de une atteinte grave et illégitime à un droit fondamental. Mais Il conclut en disant que le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de les radier que par voie de conséquence, il rejette la demande. Donc je dis que j'ai été déçu, mais je ne suis pas surpris. parce que j'ai dit que les amarres avec la démocratie et l'état de droit ont été rompus par l'état du Sénégal il y a belle lurette depuis 2015. que par de conséquence, certaines décisions le Président. Du coup, verdict, ce, jugement est, injuste Non, de toute façon, la CDAO doit aussi s'appuyer sur la question. Il ne peut pas invoquer les textes internationaux. Reconnaître la légitimité de la demande de Ousmane Sonko, la pertinence de la demande de Ousmane Sonko et dire qu'il y reconnaître atteinte

à la CEDEAO d'accord si wolof maître Ciré Clédor Ly il n'y a pas de voie de recours ici euh, si wolof tuuti si décision bu juge bi jël euh, gannaaw ba ñu seetloo ne procureur bi lu mu wax ak avocat yi lu ñu wax ak moom lu mu wax dafa dafa dafa wóore trop quoi man euh, conclusion ngeen si am daanaka li mën a wax moom moo di jaaxle naa lool ci li nga xam ne moom moo génn ci décision tax ma jaaxle li moom moo di li nga xam ne moom mooy waxal ci société mu di avocat général lu principal wane na ne ministre de l' intérieur mënul doon di dund di def li ko neex loo xam ne ko tegu ko fenn et yoon joxu ko martaba ak sañ-sañ ko muy tere joxe du ci pare na te ak ak yelefu doomu aadama boobu garaaw na garaawaay boo xam ne justice dafa war a ordonné nekk ministère de l' intérieur na jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage su fekkee ne war na nekk candidat wala warul nekk candidat kooku weesu na martaba ministre de l'intérieur te conseil constitutionnel moom moo am martaba boobu te yegg bu ñu gis nañ ni avocat général. Euh, léegi juge bi ñëw reconnaître li nga xam ne li nga xam ne que reconnaître li nga xam ne que avocat général bi wax na ko ñu nit li tax ñu ñëw fii ci loolu lañ ko tëral ba mu nangoo loolu yëpp mu mujj ne que wante ministre bi am na sañ-sañ ne Ousmane du lan la tuddee. di jël fiche de parrainage. du du ministère di jot ay fiche de parrainage am na droit décider ci place su jiw bi ne ko Ousmane di jël fiche de parrainage. léegi li tax bett li ma bett li tax bett moom moo di ko yàgg nañu sànqal yoon. fi mu ne dafa mel ni que dafa am ay nit ñu poñe doomu aadama yi poñe Sénégal ne lu ñu bëgg mooy am du leen nekk moom te loolu yàgg na ba sosu Abissa ba ci mbiru yi ba ci décision bi xam ne que atte nañ ko ba ci xam ne dafa ne portable am jël ci portable boobu ñu nekk ci situation bii ñu toog te ñëpp xam ne lan ngeen fas yéene en tant qu'avocat. waaw comme ni ngeen ko déggee noonu maître Clédor Ly Euh, moom moo moom moo pare plaidoyer am léegi honorable euh, lan ngeen mën a def si benn commentaire ngeen am si décision bi ñu jël tey fii nii. non Abdoulaye euh, franchement nous sommes attristés. Il y par rapport à la décision et l'argumentaire. tout le monde à ce que le tranche aujourd'hui la question. la question de l'urgence, il a réglé, il dit que c'est urgent. La question de la violation des droits fondamentaux, il l'a confirmé également. Donc il a jugé à la limite toutes les choses la recevoir. Mais au dernier moment, qu'est-ce qu'il a fait pour le jeter Il y a très sincèrement un contraste entre ce qu'il a développé et la décision qui a été rendue tout on est actrice des meurtris et c'est la justice sénégalaise qui

les gens, tous ceux qui sont après, les avocats, tous ceux qui sont après, un jour ou l'autre, ils vont dire pourquoi. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'en fait, que c'est une justice qui a été faite sur le terrain. Et j'ai honte. J'ai honte parce qu'ils ont mis tellement d'années à tellement d'années à Finalement, pour nous, c'est ça. Ça veut dire que ce sont des gens ils sont instrumentalisés. Ils ont toujours des à des autres. Et c'est vraiment dommage, c'est lamentable. Parce que les Sénégalais sont morts, les Sénégalais se sont battus pour qu'on soit aujourd'hui indépendant, pour, qu'on, pour, pour qu'on soit oublié de démocratie, pour que cette démocratie-là, qu'on puisse la mériter. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent non, on ne sera jamais On ne va jamais obéir au droit, on ne va jamais donner le droit et que nous allons obéir à l'être humain, qui malheureusement ne sera plus président dans quelques dans, dans quelques mois, mais quand même on, on préfère l'ordre de c'est dommage, c'est lamentable. Député. Oui, j'ai compris la discussion. Parce que ce qu'on apprend,

il y a toujours des personnes qui croient que la, la, justice passe. Il y a des Sénégalais qui croient. Mais aujourd'hui, j'ai mal à Sénégalais. Parce que moi, ça fait longtemps que je parle. Mais bon, au droit sénégalais. Au droit sénégalais. Comment dire votre nom, votre prénom Ramatoulaye Boyo. Et vous êtes membre de la, de la coalition Yéyé. On a tous vu partout de Ousmane Sonko.